Comment ça va La rubrique. Maïté, foot bu neex de. waaw neex trop fudd nii sa yaram bi daal di def karak karak hein? après nga nekkat ni dafa neex wallaay fa neex te coono bi mi wàcce doko xam sax doko xam billahi maa ko wax alors euh, tay nak dañu fas waxtane euh, fatigue chronique manam coono bo xamantene euh, du coono ben fan ni ñaari fan ah. du coono bo xamantene bo boo tëddee nelaw mu wér mhm. mu bàyyi manam mu tane dal les fatigues chronique les 6 mois. Mm. pendant 6 mois. dem ba yow sa comprendre ci ndax du doy. nga du doy. doy nga garab du tax. bi di rek. sa yaram bi day continuer di est-ce que <laughs> doy c'est-à-dire ñepp na pas mais au moins. yow lo son son train de se toute une journée bo nga mais qui nga xam fatigue chronique. lu mu nelaw nelaw bu yeewoo day gën a sonn. non mais c'est que xam nga la may problème la nga wax ni. xam nga laari la may problème c'est su noppalikoo bu mu baax redémarrage bi booy doy waar. <laughs> waaw non. 500 à l'heure lay demee est-ce que xam nga ne ki nga xamante ne dafa am fatigue chronique. Mm. effort bu ndaw bu ñàkk fayda sax bu ko defee yaramam metti eh, c'est-à-dire que fatigue chronique mooy li nga xamante ne même bu fekkee ne sax li nga xamante ne mooy li gën a banal mooy sëgg yëkkati benn affaire teg sax boo ko defee sa yaram metti nga sonn nga sentir coono. loolu ma ko doon alors que normalement effort physique dafa baax ci nit. mooy am na effort yoo xam ne da nga war di ko def parce que dafay defal dafay gën a yëngal sa yaram daf lay gën a nekk mettre à l'aise mooy mais fatigue chronique mooy li nga xamante ne boo ko xasee ba am non seulement day yàgg ci sa yaram comme ni ma ko waxee sànq nelaw du tax mu bu bàyyi naan garab taxul mu bàyyi nekk wàññi coono bi maanaam toog benn place wala genre entre pensant que ne dallu taxul mu bàyyi lépp loo mun ci def sa yaram da koy sentir. mais la ma koy indiloo. loolu cumul de fatigue la rek benn cumul la boo xam ne dafay dem ba persister ba nekk ci sa biir yaram loo xamante ne di nga bëgg mu dañ doo xam nan ngay def ba mu dañ bokkul ak ki nga xamante ne par exemple dafa enchaîner une journée ou deux jours nelawul par exemple le surlendemain mu tëdd nelaw nelaw ba doyal yeewu sentiru à l'aise maanaam yaram friiku wala genre yooyu wala ko xam te ne tey bu bu sonnee bu jëlee peut-être vitamine C naan ko nga gis mu amaat énergie continuer mais ki nga xam dafa am fatigue chronique loolu yëpp fajul jàngoro raxas bool sax bu ko defee gën a sonn bu doxee benn distance bu ndaw gën a sonn elle a constamment elle est constamment en fatigue loolu mooy fatigue chronique li nga xamante ne docteurs yi ñoom seen bopp mënaguñu diagnostiquer feebar boobu noonu xamuñu ban type la amuñu sax traitement pour loolu li ñu am mooy parfois dañ lay jox ay remontant jox la ay ay ay vitamines nga naan ko xam nga jox la calcium fer genre wala ay magnésium ak ñoom seen pour nga naan ko pour mu peut-être jàppale la pour renforcer peut-être sa organisme pour que nga mën a amaat tuuti kattan pour génn ci étape boobu noonu mhm. mais juste pour te faire comprendre ni fatigue chronique métier rek nga xam moom itam loo xam ne day durer pendant six mois xam nga loolu c'est anormal. mais loolu day stressé nit sax. maanaam pa. daan na sa sago. stress da koy def stress fait partie des choses que indi mhm. la plupart du temps c'est des gens qui sont tout le temps stressés. travail familial ah stress stress stress il y a indi fatigue chronique. intellectuellement physiquement psychiquement lépp coono la ci Donc, donc moindre faux pas nga sentir loolu ay courbature par ci xam nga tout le temps xam li gën metti nous nga tëdd nelaw nak yaakaar sa huit heures de sommeil Madame, on demande par jour de faire 8 heures de sommeil

maanaam même bu bu boo à l'aise euh, comme il faut sax nga xaw am tuuti yaram bu mais non non ki am fatigue chronique même bu heures de temps yooyu bu day gën a man bëgg poser benn question en fait ay cas de figure la par exemple kenn koo xam ne dafay C'est mhm. euh, usine. Euh, concentration la laaj parce que dafa devant une machine. Mhm. Euh, mën na mën stressé parce que volume de travail la. waaw mhm. loolu est-ce que mën nañ ko boole si si si si euh, si si euh, maanaam kii chronique yi. fatigue chronique yi fatigue chronique effectivement secondo. Mhm. ki nga xam ne dañ ko jox mu piloter benn projet ak ay nit. Mhm. si liggéeyu même parce que xam nga d'habitude de plus en plus. les gens objectifs yi ñu leen di assigner. de perte ñu bañ ko atteindre. mooy tax ñu nekk si benn stress bu doy waar. Ou le problème existentiel mais problème à ou le genre problème mu ou mhm. le jugement ou nini, ou le nini, mais comment comment arriver à trouver euh, euh, le, le, en fait parce que tu me dis qu'il n'y a pas encore de médicaments mais je veux dire l'astuce pour pouvoir au moins rester zen et pouvoir bien prendre les choses. Hamdou Taï, comme tu viens de dire le stress c'est déjà euh, une attitude boramantanée. Euh, beaucoup ko peu importe tu as tout le temps tu es tout le temps fatigué parce que tu réfléchis beaucoup euh, tu vas au ralenti parce que les looy def yaa ngi def benn calcul de xam dafa extrême déjà tu fatigues ton esprit ah, sans compter fatigue esprit boobu noonu physiquement doo nek, parce que les looy def yaa ngi calculer yaa ngi ralentir sa bop, yang y jéem a def ay affaires excessif wala jéem a def ay prouver ay choses yo xamante da ngay dem ba fay japp sa yaram mhm. donc xam nga loolu c'est des choses yo xam da ngay anxieux tout le temps tu es anxieux. Ah parce que y a voilà donc euh, Lolo su que ne ci benn yoon la dal wala parce que il peut y arriver que de temps en temps stressé pour des détail mais après tu te rends compte que le lendemain tu passes à autre chose. mais les femmes n'y xam constamment ils sont stressés madame 27 jours sur 7 dañuy stressé comme tu dis tout à l'heure c'est des c'est des personnes y xam ils ont des travail tellement dur loolu rek stress la maanaam ngay xëy saay su nekk di dem di liggéey te liggéey bi ngay def neexu la maanaam tu le malgré toi donc yow bi ngay dem déjà yaa ngi jàpp ne voilà non parce que amuloo choix sax am na ñoo xam ne amuñu leneen ils sont obligés de jàpp ci loolu noonu nga xam te ne moom lañ am donc ñooñu dañuy xëy di dem di liggéey te li ñuy def neexu leen donc nous me nañ déjà parce que nous ngi oh putain hein, une mauvaise journée encore que je vais passer ou bien une journée encore que je vais devoir faire kooku déjà préparé wu psychologiquement à stress bobu non. mu yendoog stress bobu. Wacc stress bobu. Bo wacc stress u liggéey non noonu yaa ngi xaar bo yeggee sa kër noy def beneen stress ak lay xaaraat nga nekkaat sa kër loolu mooy waral les gens qui ont des fatigues chroniques ils ont du mal à dormir normalement ils ont des sommeils super agités seen nelaw du du linéaire hmm. donc dañuy rek ñeewu constamment ci digg nelaw bi comprendre nga dañuy dañuy am ay peur xam nga nga jikki-jikki sursauté ci nelaw te xam loolu hmm. lu ko waral des fois nga dem ba digg guddi nelaw ya jeex nga mujj toog di xoole ba heure xëy jot xam nga loolu déjà c'est tout à fait normal que nga sonn parce que sa nelaw bu normalul booy boo nelawul assez de temps qu'il faut loolu yëpp dafay tax sa tendre donc imagine toi koo xam constamment loolu lay dund amul jour boo xamante ne pendant une période de six mois yow c'est-à-dire que fatigue chronique boo ça peut pas durer euh, moins de quatre mois au minimum 5 mois maximum 6 mois day nekk si sa yaram mais Maïté est-ce que six mois yooyu noonu bu jeexee après dina dañ wala lan moo la siy fekk bu six mois yi dañee sax du la problème juste lool nak moy problème mu feebar xam nga feebar li ci gëna graw moy mën na nga ne li nga am nga ne lool nga am nga nekk ci diko ko traité di ci faj wala mën nga bàyyi ko négligé ko mu dem ba jur leneen nga dem ba lool noonu nga doon traité non wala diko ko non mu dem ba mujj wër leneen fekk si parce que ci diggante bobu noonu leneen jot na cee xew manam feebar bobu jot naa créé beneen feebar mu mujj nekk stress continuel parce que li waroon arrêté 6 mois imagine toi nga ne léegi sama coono sama fatigue chronique bi jeex na nga tourné gis ne am nga beneen feebar bu la dal xam nga yow delluwaat nga ci fatigue chronique boobu ndax yaa ngi nekkaat ci beneen stress boo xam te ne beneen feebar la donc loolu moo tax on demande souvent aux gens d'arrêter de mettre de la pression ci seen kaw maanaam di di des fois nit ñi ñooy créer seen bopp attitude yooyu xam nga attitude yow nga dem ba stressé à un point où yow tu ne dors pas la nuit parce que tout simplement yow yaa ngi xalaat problème bi jël problème bi aj ko teg ko foo xamante ne yow ci da ngay dem ba conditionner sa organisme. Mhm. conditionner sa xel. conditionner sa yaram conditionner lépp de tes autres que ni yow dafa mel ni tey ngay tëdd nga war a nelaw xam ne da nga war a nelaw heure nelaw jot na nga ne doo nelaw parce que yaa ngi xalaat suba eh. mais c'est vrai. parce que stress loolu la lay def. stress boo ko toppee da dem ba da ngay yow war a dem tëdd nelaw. nga ragal a tëdd parce que yaa ngi naan bu ma nelawee ndax suba dinaa yeewu wala ndax bu ma nelawee ndax suba sama problème dina réglé mais nelawal rek. Mais c'est war rek yàlla baax na suba boo jour la. nga problème du sommeil Il y a des spécialistes du sommeil Ou des médecins généraliste. il faut aller chez un généraliste boo demee généraliste tu lui expliques ton problème. mom dina la wax exactement les remontants à prendre les trucs à faire Etc comme ça parce que nit ki boo expliquer li nga xam tane par exemple un généraliste c'est quelqu'un qui peut diagnostiquer beaucoup de choses après derrière est-ce qu'il peut te donner le traitement qu'il faut c'est là où il y a la différence. mom bu demee ba xamné ni c'est pas à lui de te faire un traitement par rapport à sa maladie fi mu toll ak ce ce type de maladie bi mom mhm. moom i t'oriente mooy waral parfois nga dem seeti généraliste mu consulté la ba paré na la demal defee analyse bu défé analyse ba pare yóbbu ko ci tel docteur wala yobou ko ci tel spécialiste wala demal défi ji examen yi nga ñew indil ma mom bo ñewé mu xol résultat yi xol mën la né ah li kat man de lii la la recommandé jox la peut-être ko recommandation ci benn médecin bi ne la benn papier boo xam te ne da lay recommandé ci médecin bi nga dem ci médecin boobu wala mu ne la woowal spécialiste tey tel wala su fekkee am nga moyen demal fii ak fii ak fii nga dem ñooñu yóbbaale résultat yi ñooñu mën a xool mën a gis exactement lan moo la dal xool lan mooy le traitement qu'il faut ak suivi bi ñu war a def ci loolu parce que des fois am na maladie yoo xam te ne plusieurs médecins ñoo koy suivre c'est vrai ce n'est pas juste un médecin di nga dem ci médecin bi mu traité la ci sens bi kii nga dem ci kee mu def lii nga dem ci kee mu def lee donc ça veut dire ku nekk ak li nga xamante ne loolu sa xam-xam ci loolu la màcc parce que médecin yëpp certes ñoom ñëpp jàng nañ médecine mais dañu spécialisé wu loolu mooy def seen différence ni dañuy spécialisé wu ci lii ñi spécialisé wu ci lee ñi spécialisé wu ci lële donc moo tax corps de métier yi médecine yëpp ils se valent ça l'inga qui donc c'est la même chose avec une fatigue chronique quand tu as une fatigue chronique fatigue vous perpétuelle vous continuez régulièrement madame chaque jour chaque jour chaque jour tu même état avec normalement ça va mais une fatigue pendant une semaine c'est anormal mais deux jours ça te fait anormal deux jours trois jours c'est anormal une semaine tu as la même fatigue c'est anormal il faut que tu ailles voir un médecin wax ko ni que da ngay constamment da ngay sonn moom mu xool ndax daf la war a prescrire ay remontant wala ndax daf la war a defloo ay analyse wala daf la war a defloo lii parce que lu nekk mën na parce que fatigue chronique boobu sax mën na jóge ci benn feebar boo xam dafa nekk di développé yu sa biir yaram te xamuloo ko ok te man xam la laa bëggoon rajouter c'est-à-dire que xam nga euh, euh, soo ñàkkee nelaw trois jours mhm. da ngay am palpitation soo demee si médecin bi da ngay dem si médecin bi lu mu lay ñëkk a defal ma appareil boobu la pour euh, dafay jël stéthoscope bi déjà xool sa battement cœur après mu defal la appareil naka tudd si appareil boobu muy dugal la tensiomètre tensiomètre voilà après automatiquement soo defulee nànk euh, dafa naan la saa yee sa tension de dafa yéeg. wala voilà il faut nga jël garab bi. mais quand tu es fatigué tu as un problème de tension quand tu ne dors pas tu as un problème de tension tu as un problème cardiaque ça dit que xam nga ay nerfs yu tendre à tout moment loolu. dafa dafa kéemaan loolu da nga koy da nga koy xoolee sa bopp rek yow parfois ça t'arrive tu enchaînes deux jours ou trois jours où tu te reposes pas bien jour bi ngay nelaw da ngay gis sa yaram yëpp day vibrer da ngay sonn ba doo mun dox c'est-à-dire que da ngay mel dañ lay maas ay courant tellement mhm. que da ngay yàkkamte tëdd ci lal bi ba mën a nelaw li ñuy wax ne sa yaram mooy nagam non je te jure da ngay yàkkamti voilà nege nege nege ngay def da ngay yàkkamte tëdd ci lal ba mën a nelaw ba rattraper temps boobu noonu nga perte et tu te rends compte qu'effectivement quand tu dors profondément tu dors longtemps boo yeewoo da ngay gën a mel ni ku xaw a tayal mais au moins boo tayalee benn temps bi ngay jóg la rek boo xasee ba sangu nii ba nekk rek da ngay gis da ngay nekkaat en forme mën a continuer ce jour ce matin bi ñuy ñëw loolu laal doon wax man j'ai l'impression que ni bu ma tëddee noppalu bu baax ne tey damay jël sama journée récupéré jour boobu su ma yeewoo du ma yendu si jàmm <laughs> ce matin maa ngi la koy wax démb loolu daf ma dal ma noppalu tëdd lu bëri mais ba tey ji daf ma jàpp di métti sama yaram parce que au fait parfois li nit ñi dul xam mooy ils n'ont pas un bon sommeil comme je viens de dire dafa am ay sommeil yoo xam te ne sommeil la mooy tu te dors tu dors tu te couches et tu as un sommeil profond mhm. madame. tu dors sans rupture c'est ce sommeil bu baax sommeil bu baax il nga tëdd 6 heures d'affilée ou 8 heures d'affilée tu dors mhm. dara la mhm. mais on est dans un environnement où c'est difficile de dormir 6 heures d'affilée sans être réveillé soit par un bruit soit par des parlottes soit par les enfants soit par le Tentamar de quelque chose. par le téléphone Voilà sa téléphone. déjà rek motax ma don wax passé. ci mhm. ci bi évitons de mettre nos téléphones sous les oreilles. parce que tu tëdd téléphone téléphone teg ko sa bi. Ah, non seulement on dit de lay sonal secondo lu vibrer nga la don def de ku woote nga wuyu. bayna motax les gens qui veulent un bon sommeil en général ils éteignent leur portable quand ils dorment. ils ferment tout. ils les plaignent tête non mais parce que parfois c'est bien. Parce que tu as besoin de te reposer. Et pour te reposer, le téléphone ne peut pas être accessible parce que téléphone noo ko ah téléphone daf ko ne sonné urgence su amee moo tax du ma fay sama téléphone Ouais non urgence en fait loolu nag mooy problème bi mooy que on est tellement sur le qui vive on est tellement sur le qui vive parce que on est dans un environnement bon xamante rien n'est sûr tey yow booy de tey yaa ngi naan sa biir xel ma fay sama téléphone de su ma ko fayee mon mun nañ mon woo mun nañ xam nga on ne sait jamais cas d'urgence mun na am fu nekk donc yow tu tu déjà yaa ngi ci pression ci loolu non rek balaa ngaa tëdd parce que yaa ngi xalaat ne dañ la war a te normalement booy de waroo am benn pression da war a ñëw rek nga tëdd nga nelaw. Ndiaye Mayte gis nga des fois boo sonnee sa téléphone mun na sonné quatre-vingt-dix mille fois doo ko yëg. daf fekk sori na soriwu la rek. mu sori la rek Mayte man dama tàmm heure bu ma mënti tëdd fajar bu jotee kenn du ma yee damay jugal sama bopp. waaw loolu am na automatisme la te fajar bi bu jotee mu man amuma abit tëdd ci kaw lal ba onze heures onze heures du ma fekk si kaw damay jug fajar. après ma tëddaat ba 11h mais bërki démb non seulement dama tëdd fajar ba ma yeewu heure bi ma yeewu du ma ko wax ci rajo bi <laughs> te ba ma yeewoo fekk naa sama téléphone lu ma 17 appels en absence mais nag ma woon sama téléphone kii sax woon ma ba da ngaa def 8 heures de plus de 8 heures de sommeil kon ah, da nga exagéré woon ma ba sonn jëluma ko non bu ko wax aal mais bi pare li nit ñi dul comprendre le sommeil dans la nuit et le sommeil en journée c'est deux choses différentes tu dors plus paisiblement et tu as un sommeil réparateur plus la nuit que dans la journée. am ñoo forcément dañuy am fatigue chronique parce qu'ils ne dorment pas la nuit pour ñom nelaw alors que sommeil bu normal c'est pas possible. parce que le matin tout est réveillé les bruits sont de partout c'est-à-dire que tout est tendu le climat change. Les, les, attitudes des gens changent. Il y a l'environnement est dynamique. Donc, bruyant là alors que pendant la nuit tout est reposé les ne teg moo tax yàlla deful dara par mm. hasard par hasard xam nga ñun ñooy jël lépp rek bu ko conditionner suñu bopp am na ñoo xamante ne tey guddi dañuy gëmmantu sax ñu ne force di duñ nelaw de aussi rek man duma nelaw mënumaa nelaw heure bi parce que su ma nelawee heure bi waaw non artistes ça se comprend parce que ñoom ils sont obligés de d'aller jouer ah mm. alors ce sont des gens qui dorment la nuit et qui euh, qui dorment qui dorment le jour et qui vont au travail la nuit c'est des gens en général qui sont surmenés. ah oui. artistes la plupart du temps ils sont surmenés c'est ce qui fait qu'ils sont dafa addicts à des à des à des à des drogues etc. parce qu'ils ont besoin de remontants pour pouvoir neck. parce que sommeil boobu am en journée doyul c'est pas un sommeil qui leur permet d'être en forme donc ils sont obligés parfois artistes parce qu'ils ont besoin de quelque chose pour les maintenir en forme pour que ñu gens euh, comme il faut sinon c'est des gens qui vont être surmenés à temps plein Nous sommes tenus dañuy voilà donc di wax nit ñi rek euh, attention lu bari ci stress nañu le stress stress bi àdduna nag noonu la tëddee. mënul mm. mënul ñàkk nga am ay soucis mënul ñàkk mais parfois da ngay jël soucis yooyu nga nga nangul sa bopp. tegee ko nee ndax nga am tuuti dund. parce que àdduna da nit da ngay dund. parce que des fois nga jël stress boo xamante ne ki la ko teg moom gënu la ba mu war la teg stress boobu yooyu ba war yow moom mu war a nekk yow nga war a mën a nekk ci coono. Mm. loolu nit da nga koy bañal sa bopp. wala boog boo nekkee ci stress tamit am na benn heure nga jël stress bi teg ko daal di tëdd nelaw te booy nelaw yi on essaie toujours de dormir dans un bon environnement maanaam foo xam dafa calme dafa paisible loolu mooy joxe sommeil bu baax tëdd fay sa téléphone tegee ko nële nga tëdd nelaw. Hmm. tëj say rideau tëj say buntu. Hmm. tëj lépp kastaral lépp. wàccee say volet fàtte say volet daal di tëdd nelaw <laughs> nga nelaw fexe ba bu dara yee comprendre hmm. voilà pour les personnes qui ils ont des problèmes de sommeil aller chez un médecin médecin bi peut-être mën na leen jox ay ay ay somnifère wala ay remon dynamogène am na ñoom dynamogène dañuy naan bu ñu bëggee nelaw dañuy naan dynamogène nelaw ba fàtte seen i maam am na ñoo xam ne waaw parce que tamit parfois il faut chercher des solutions pour que nga mën a nelaw mën a noppal sa yaram mais lan mooy problème naan ay dynamogène c'est bien da nga koy naan di nga nelaw ba fàtte say bor mais aussi daf lay def ay effets secondaires yoo xamante ne souhaité woo ko ci woon non seulement di nga lekk lu bëri te après da lay grossir loo non ça dépend loolu c'est pas c'est pas tout le monde attends il faut pas aussi qu'on qu'on confonde quelque chose il y a des gens qui prennent des vitamines ne fait rien si leur seen organisme musu leen pataaloo am na ñoo xamante ne naan dynamogène fi ba suba suba lekk bay bëgg a dee taxul ñu am yaram lépp dépendre na ci organisme nit ki ak nit ki ni affaire bi di réagir ci yaramam donc c'est pas tout le monde qui a le même effet. moo tax ma ne tey médecin mooy prescrire garab voilà va chez un médecin un généraliste nga ne ko man dama am fatigue continuelle dama bëggoon xam lan moo waral loolu est-ce que mën naa am lu may moom il te donnera ah, bu dul dinamogène dina la jox benn garab wala mu jox la somnifère wala mu jox la ay trucs yoo xamante ne c'est pas à boire tous les jours mm-hmm. ba pare il faut savoir que des dynamogènes et cetera c'est pas à boire tous les jours tu le bois à un certain temps dynamogène tey boo koy naan dafa nga dem ba sentir ne vraiment tu as besoin de dormir nga naan ko nga tëdd nga nelaw mooy garab bi nekk ci bi nekk ci kii waaw dañ koy sotti noonu kii voilà ah. loolu nga naan ko nga nelaw parce que dalay dina la dimbali mais du lo ne koy nan continuellement manam chaque jour chaque jour chaque jour. dépendant ça? voilà da ngay dépendant donc il y a plein de médicaments yo xam te ay remontants yo xam médecin médecins yi mën nañ la ko jox mais le docteur qui nga expliqué ko fatigue bobu ngay am nga xam chaque jour da ngay ce n'est pas normal. Alors, les médecins n'ont pas trouvé de, n'ont pas fait de diagnostic par rapport à ça, que, euh, madame, s'il y a forcément une, un, truc virus dire voilà, genre, non, non, non. Ils ont juste constaté que c'était un problème d'excès de, de, stress, c'était un problème de sommeil non, euh, non linéaire, maanaam nga bañ nelaw nelaw yu constant di am ay coupure de nelaw ak cumul de coono bo xamante euh, dafa yag ci sa yaram moy dem ba indi fatigue chronique boobu voilà donc nit ñi nañu bàyyi xel ci loolu bu baaxa ah. baax ah, ñu bëri am nañu problème boobu de voilà xam naa tey moom euh, tu les as vraiment tu les as beaucoup aidés tout le monde presque koo ci laaj mu ne la man damay am fatigue chronique. sama soxna sama soxna mi ngi envoyer message néna li lii mayti di wax mom moko ko dal man ah attends oh mais nee naa ko yow moom mo taxawaalu moo la semaine passée parce que ñun pas hein. mais c'est comme les femmes enceintes qui accouchent quand tu es une nouvelle maman en général tu as tendance à avoir une fatigue chronique parce que tout le temps tu ne dors pas la nuit te yàlla may na la kattan ba nag waaw wallaay doo nelaw guddi mais lii lii dindi nelaw goudi bobu motax ñu nan xalé jigen nañu baye bu ñu wasinee rek dem liggéeyi dëgg parce que non seulement tu dors pas la nuit tu te réveilles le matin pour aller au travail tu as un cumul de de fatigue bu nekk sa yaram alors que tey boo nelawul goudi war nga dans la journée même bu dee ben cinq minutes la nga profité ci teud